Sow lu yàggul dara a gëjoon nañ la gis ci hmm. scène bi nga xaw a absenté hmm. lan moo waral. waaw depuis ci albumu Wally bi bi mu koy lancé defe naa lañ la gëj a gis ba tey nga apparaître ci scène dëgg la xam nga nag dafa am ci liggéey bu ma nekk fan nii xam naa sax du ma xam naa charte télé mooy waral du ma mën di jaar ci tur yi ndax c'est commercial waaye dama am ñaari sponsor yu mag yoo xam ne maay seen ambassadeur kenn ki mu ngi yëngu ci wàllu transfert d'argent kenn ki mi ci wàllu ndox. ku may suivre am samay statut di nga gis li nga xam ne maa ngi koy posté à tout moment ci liggéey yooyu ma nekk nag moo xaw a surchargé ëpp ma doole ba ma xaw a reculer tuuti rek ci li nga xam ne mooy. yaa ngi wax leneen mooy coowu showbiz bi. yaa wax leneen ku ne ne dégg na fi coow li fi am bu yàggul ci diggante waaleek ak Ameth non déggu la nga wax. non foofu coow amu fa. tax ngeen ni coow amu fi. non coow amu amu fi coow amu fi bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te léeg-léeg dañu màttante ba deret génn te boo ci saxee ceeb da koy yëy ba mokk wan naa su ko. kër la papa ak yaay suñu ndey ak suñu baay ñooñu gën a jege ñuy liggéeyal te dañuy xëy reyante ci kër gi terewul yi ñun ku ci nekk ci ñun man ñaata laa reyante ak El Hadj Ndiaye ci internet laay wax télévision laa xam ne bu may seetaan ñaata yoon gerte toog sama kër na bàyyi de carrière nit ñi nañu bàyyi di yaatal lu di réer lu réewul ñaar ñuy ànd. fi tey ñu dem ju ñu dem jubóole Youssou Dieng ak Waly. waaw le cas de Ameth Waly est-ce que du ay frustration yoo xam ne moom dara xewul benn frustration amul jàmm moo xew amet suma mag la suma ndijaay la suma xarit la Waly c'est mon cousin c'est mon patron yàlla jiital ko muy sunu kilifa ñuy liggéey ñu koy fay moom moom mu ñuy fay muy man mag muy Ameth ñëpp ci staff bi ak képp ku mu njaboote nga nekk vraiment ren war Ramadan Waly la ñu engagé fay ko waale lay fay ku ne nag ak secteur ñii ngi marimba ñii ngi guitare ñii ngi fecc ñii ngi tëgg Omaro ngi wax keneen ak keneen a ngi wax te du tee bu ñu paree ku nekk ñu fay la sa cachet nga ñibbi ñun nag ñun ñi ko sekk di liggéey mais bu ñu waree mbëkkante dañu mbëkkante bu ñu waree dóorante kurpañ dañuy dóorante bu ñu waree reyante dañuy reyante mais après dañu àndaat problème amu fi coow amu fi Ameth mooy mag gars yi génnee nañ lu ñu exposé nag moom problème am mais Ameth mooy magi Waly Waly mooy rek Ameth du tee nag Waly mooy kilifa gi moom la yàlla jiital moom la bi dal mais c'est une famille c'est ak lu mën a xew jàppal ne ci jàmm lay mujjee te Ameth maa la man suma kilifa la suma mag la suma xarit la jot naa ko téléphone ndax bi coow li amee rek deux jours après dafa voyagé dem Suisse waxtaan nañ waxtaan wu yaatu dénk naa ko ay kàddu wax naa jox ko wax na delloo ma xippi leen seen bët tey xool ku yaakaar fii lu ñaaw wala ab wala ab wane ginnaaw ci ñaari diggante yi juum nga ndax du ci am te man du ko seetaan te maay seen communicateur. <laughs> Mm-hmm. c'est vrai que yow bi. mais yëg bi ma ci am rek mooy euh, liggéey fay na ma. affaire bi amul amul secret liggéey la rek liggéey fay na ma dama liggéey ba ñu fal ma barki Demba Ndiaye le communicateur du peuple jox ma raay bi fii ci ci cérémonie music hour cérémonie music hour bi passé y' a même pas deux mois trois mois ma ci nuyu Souleymane bu baax le dirigeant le manager moom mi ko organisé woon ñu jël raay fal ma communicateur du peuple kon tey bu ñu demee tey ba suñu liggéey à travers la télévision li ñuy yëngu ci wàllu communication traditionnelle réew mi rafetlu ko ba ku xewle baa nga am sa programme baa ngay dajale ay nit baat ak tontu dox seen diggante bu Omaro teewul mel ne ni waxoo loolu nag wax dëgg yàlla nga naaw suñu liggéeyu ndey sunu barke Baye sunu xol bu rafet ak sunu nangoo liggéey ak sunu ñaanu Serigne Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou joman ko may affaire bi amul secret ak lu mën a xew ñun am nañ jom am nañ fulla ak fayda ci sunu liggéey te ñu ngi góorgóorlu di fexe jëm kanam kii jëm kanam nag ak kii yegg yàllaa ko yor ñoo ngi ñaan yàlla mu suturaal nu yërëm nu téel nu boppam ban yegg fañ jëm. te joxeetul mm-hmm. mm-hmm. weesu mbote te bu ko weesoo di mbëkkee lépp loo gis ci àddina tolluwaay la dama féete le 2 novembre passé suma 10 ans de carrière kon nekkatuma xale ci li may yëngu xale yi am 10 ans ñi ngi def entrée sixième kon doonatuma gone ci li may yëngu amaana nag xale laa at waaye loo def fukki at doonatu ci gone te milieu bi def naa ci dix ans léegi nag milieu boo def dix ans war nga toog nag def bilan xool li nga war a yokk ak li nga war a wàññi kenn digalu ma ko kenn conseillé ma ko kenn proposé wu ma ko maa dem ba yàgg ma xam ne nag xar day weesu mboote jot na ma màgg màgg nag moo waral ma génn ci tàbbi ci. ñëpp xam nañ ne ci way lañ la xamee est-ce que tey mën nañ xaaraat Omaro mu wayaat. non man dama mënati way man sama baat bi ñàkk ko bi yàgg mënatu maa way. lan moo yàq sa baat. <laughs> yàq sa la rek ay waxee la la yàq daal mais dama xam nga loo bàyyi mbaay la dama dama gëj def activité gëj def événement gëj a génne album ak yooyu waral baat bi léegi moom wax la man rek waaye waaye moom baat bi mënatu ko wax dëgg yàlla. da ngaa transhumé. non du question sax mais métier bi la rek parce que waye ak wax ji benn la bii dañ ko sukkar bi ñu xorom ko. y'a pas de changement y'a pas de changement wax benn la di way mooy ndox bu ñu xorom. Eh, mooy ndox buñ suukar wax mooy wax buñ xorom jeex na bii xorom la bii suukar la waaye ñaari la comme mënutuma boole ñaari moo tax ma téye benn bi. ñu lay xaar tout yëg yëngal ko loolu am problème ragaluñ ko jaajëfati